La ilaha illallah La ilaha illallah Bismillah ibn بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله di mbokk taalibe ñu ngi leen nuyu den siyaare den nuyu fi leen baaxoon yow mi ci Lampa Leral Touba di siyaare mboolem jëriñ yëpp rek naka noonu la kilifa mi jataay gi di Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ko di nuyu sëriñ di Modou Mbène di ñaan ak yàgg ku wér waaye di nuyu sëriñ di Rokhaya fal mi fi toogal sëriñ Mortala di nuyu suñu gudd yoni yi sëriñ Mortala di nuyu sëriñam bu baax ba sëriñ ak Seydina Alioune Badara di ko ñaan suñu borom ak yag ak wér ñi ngi nuyu fiñ ñu nuyu rek ci buntu kër Cheikh Rafal yi ñu ko baaxoo defa tay rek ñi ngi ci buntu kër Cheikh Rafal len di kër sëriñ basirou Fall Khadim Mbodj moom sëriñ Mortala mom Cheikh Ibrahima waaye sangab doom ju baax ja jërinum ju baax ja dekkal ko fi mam Lamp Fall mu baaxoo bisu taxawu bisu ñaar fan yi ci weeru koor wi xam naa ne duñu guddal dañuy jox sëriñ maam góor moom it mu nuyoo rek siyaar li ñu waroon wax yëpp rek xam naa ne ñu gàttaloon rek sëriñ maam ah, ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar di la jaajëfal waaye ñuy siyaaree suñu jëru si Ibrahima Sow suuf Baye Fall di siyaar baax di siyaare suñu cameraman suñu Moustapha Sarr ah, sëriñ Massaer comme ni nga ko waxee noonu la dañuy jël suñu nuyoo ko sof sof nuyoo ndax nuyoo bi mat na te matale na mu mel ne ni nga ko waxee tey ji ñu ngi fii ci Daaru Manaan ci eh, pàkku eh, Sëriñ Bassirou Fall Khadim Mbodj Eh, ñu ñaan suñu borom dolli ay leeram te dolli ko yërmande waaye doomam ju baax ji ko fi nekkal di maam Lamp Fall eh, moom sëñ Bassirou Fall Xadim ñu ko ñaan suñu borom dolli ko fi yàggal dafa ànd ak wér mel la ñaar fukki fan ci weeru koor ñaar fukki ci weeru koor nag day sëmbul ci yoonu murit ndax mooy bis bi nga xamante ni ci la Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nangu loon maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ci taarix eh, histoire nett la ni maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi egsi woon Mbàkke Kajoor ñeenti fan ci weeru koor waaye nag njëbbal gi moom diggam ak Sëriñ Tuubaa mi ko nangu mu mel ne tey jii waa njabootu Serigne Cheikh Fall Khady Gueye ñu ngi koy taxaw fële ca Kaolack euh, suñu jëwriñ Serigne Ibrahima foofu la foofu la dem kon mu mel ni kon tey jii bis bi moom la Maam Lam Fall tànn ngir di ci jébbale ay kumteem kan lay jébbale ay kumteem mooy wasilaam sëriñam di way juram Serigne Abdou Rokhaya Fall moom Cheikh Mamar Talla Fall ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi taxantu taxantu ku wér mel ni kon Serigne bi mu xëyee ba nëgg ni mi ànd ak mboolem taalibe yi ànd ak xarit yi ànd ak soppe ànd ak am di jàmm yi mel ni fii mu ne li ñu war a def lépp def nañ ko kon léegi li des mooy fas yéene eh, yóbbu li nga xamante mo liggey bi ci feele ci palen ci keur seigne eh, Abdou rokhay Fall mi nga xamni mo fi toog toogaay Cheikh mamata la kon yeen ñi nga xam ne top ci site bi lam Fall Leeral Touba kon eh, tay ji di ñaar fukk fan ci wéru koor fi ci Daaru manan kon mam lam Fall mi ngi fas yéene jël ab liggéeyam jël ko di yett yët waajuram di serignum di xaritam serigne Abdou Fall rokhay ñu ñaan suñu borom te lako ko dama tam ànd kon daal lepp lo xamni ne na fi rek inshallah rabbi lam Fall Leeral Touba dañ leen ko dañ leen ko diktal ndem somna yalla serigne sëñ sëriñ maam góor foofu nga daanalee moom am na solo lolou ko waxe eh, mam maam Lamp Fall solo waye segam eh, liggey bi lolou la sa li ci waron wax yëpp wax nga ko dañu wacc foofu kàddu yi rek ñu wéyal liggey bi mbooleem lo xamni ci amna am fi rek ñu leen ko jox incha allah ci kaddu yàlla ci seen leen Lampal leeral kon nañuy wéyalee liggéey bi rek ci fi ci Touba daru marnan ci kër serigne Bassir Fall Xadim bo ci liggey bu mag bi nga xamni ci eh, doom ju bax je mi ngi ko fi def di ko ñaanal suñu borom may ko ak yag ak wér muy serigne mam Lamp Fall liggéey bi nga xamni mi ngi koy liggéeyal mam ju bax je yalla ko ci yalla jot ci barke mam serigne Fall waye nak dañuy taxaw ak suñu jorign ci lepp bok ci jorign kër gi euh, serigne Mbacke mi ak serigne Moustapha Fall mi nga xamne ci ñom ñëpp xam ñeen ci kër serigne Bachir Fall Khady Mbodj serigne sëriñ Lamp ginnaaw bu ñu la nuyoo la mu melni ñaar fan yi li ci serigne maam goor wax legi dafa am solo waaw xamna ne du jar ñu ko indiwaat ndax xamna na solo lool waye ñaar fan yi bu ko tudde rek xel lay dem ci maam Lamp Fall serigne sëriñ Fall Khady Mbodj man mi dafa ko xam ba bi ñu doon ni bu jotté fo man di nekk ci aduna fi rek ko def ndax lan pass passu serigne ak bëggub serigne waye li nga xamni ci serigne bi yor fasiyene ko yobul way juróom bu baax bi serigne bi Rokhaya and ko mbolem tele bi xarit soppi sa yeen ni yene ci japp ba tay liggéey bi yamuni nii yan kàddu ngay joxe onzu euh, billahi mina seytaan rajim la hawla wala quwwata illa billahi al comme non nga ko waxee ni ngi santat yalla bu baax baax baax a yo ay leeram ci barkam ñaanal kii fi wutu waajuram bu baax boobu suñu bisatu xarit muy suñu làmpal ñu koy ñaan yàlla yàlla suñu borom guddal fanam kum non nga ko waxee ñaar fan koor gi suñu lampal dako dako da dafa bokk ci tan parce que bi ñuy di liggéey commencé liggéey bi sax ne ñaar fukki fan la sëñ bi doon jébale ci lañ bi ñu ne ke sëñ lampal mi amna pas-pas ci li Ligi def liggéey bi gën dox ba tay ji liggey bi tombante ñaar ko ndax ñaar ko fan dafa dafa dafa fekk ci liggey bi dafa dem ba fekk ci liggey bi ndax sëñ bi ñi taw tamal doon nañ jébale ci fukki fan yeek juroom su mu jumul ñaar fan bi nga commencé jébale mi ngi toll ci ñeen wala ñetti at kon lool ak sant la ñi ngi ñaanu bu baax daal señ Abdou Roqe mi nga xam ni ne moom la señ lamb Fall mi di yobul ndogu yi mu jëme ko ci kër señ Touba nga ñi ñaanu bu baax yalla yalla suñu borom lepp luñ ci ñaan rek yalla ñu yalla suñu borom nangul jëf señ Mbacke kon xam naa ci des dama koy bàyyi sëñ Moustapha rek am na lu ma ko war a laaj waaye sëñ Moustapha dinaa ko laaj maa dem ci sëñ Moustapha di sëñ am di xat naan ku yokkul yaa wàññi sëñ maam góor waaye ku xool sëñ bi ku ko fii ñëwoon daaw ñëw fi xam ne liggéey bi yokk na sa gëm nañ bu baax ba di sëriñ Bassirou Fall Khary Mbodj bu teewaatoon woon ci kër gi booli yaakaar naa ne fi ñu toll nii fukki boolee ngi fi sëñ maam sa loolu pas-pas boobu yéen ko waxee sëñ Masseer ñi ngi rafetlu question boobu nga indi parce que loolu rek ak sant la parce que euh, sëñ Bassum Baye Ndam tamit ñi ngi koy sant bu baax parce que ku ne xamoon na diggante Baye Ndam Fall ak sëñ Bassirou Fall Khady Mbodj ñoo bokk sëñ Baye Ndam ko sëñ Bassirou Fall Khady Mbodj sëñ Bassirou Fall Khady Mbodj mi la yëkkati aw tur ko Baye Ndam ba nii may waxee yow Baye Ndam moomu di doo doom ci sëñ Bassirou mi ngi ci daara ba léegi wàcce kon loolu te ay doomi bay la dañoo bokk bay loolu rek am jangale la ñi ngi ñaan señ bass bu baax yalla yalla suñu borom guddal ko fan ay fanam wéeru ay te lii mu def ni wax dëgg yalla indi na fi nagu mag chaque année noonu lay def ñi ngi ñaan bu baax yalla yalla suñu borom yok ko bu baaxa baaxa baaxa baax comme non nga ko waxee liñ am ren amuñu ko won daw liñ am daw amuñu ko won daw jik yaakaar naa su ma daw ñu doxé ni dañ dan def enveloppe wala dañ dan def ni wala dañ dan def ni légui nak sëñ bi suñu borom defal nañu tawfiq ba ni lañu def dañ dan dañuy yeewaay nak di yob amin barke Serafal jef ma ser santan nañ yalla bu baax nak ñun wa kër maam Serafal ñun wa kër sëñ lampal santan nañ baax nak lepp nak ci mbaxu ñi nga xam ni comme non ñu ko waxee ay soppé sëñ lampal lañ soppé sëñ Lamp yi sax ño gëna passé su jimu talibé taalibe sëñ bi ay talibé boko konté ay benn benn lay doon ñaar wa ñi nga xam ni ñi bëgg sëriñ bi te yàlla rek tax te xam bi tay immobile prophète wala oto prophète taxu ko jox lu mam liggéeyal ko mam mam Seera Fall moo ko di ay taalibeem xam nañ ci dara loolu nag la ko soppee dal ñi ngi ñaan daal ci doole maam Seera Fall suñ fanam wéral cerem. Mai ngi jégalu nak bu baax kàddu yi jërëjëf jërëjëf sëriñ mam góor dégg nga kàddu yi sëriñ Mbacke yi kon xam naa ne ñu bàyyi laaj sëriñ Moustapha rek ne bu am nga loo laaj waaw mel na na bu fekkee ne kii ñu wàcce dugal ci Abdourahmane ak mbooleeg gi waaye di ko ñaanal borom ëtt bi muy sëriñ Basirou Fall di ñaan sa borom fa mu tëdd liggéeyam bam liggéeyal waaj yu ya muy serigne fallu sa borom sa borom sa su mu diko fa fekk waye di ñaanal doomam ji fi nek muy serigne làmp sa borom yagal fan yu lol te wéral ko te yokku katan gi lol nal yi mu nal te yene ko te fas ko yene liggéeyal mamam je Cheikh ibrahim Fall sa borom ko kàttanal ko nu ko bëggee rek mu mënee ko ni ànd koog mboolem julli ñëpp mboolem taalibe yëpp ci barkeb Cheikh Ibra Fall sëriñ bi nag xam naa kàddu yu gàtt gàtt la ñuy ndax daa xaw a naajaale sëriñ bi nag mi ngi jotali kàddu yu cant ci mbooleem taalibe yi ak dëkkandoo yi yëpp ci jëf ji nga xam ni baaxoo ngeen koo jëf at mu ne ngeen defe ko ni ngeen ko doon defee at mu bu dellusee mu gën a baax gën a neex lépp ànd ak pas-pas ak yéene. kon neena amel ne len ak cant ak ngeureum di len ko amal di len ko amal ak mbooleem dëkkandoo yi fi nek nga xamne waxtu wone lu mu dugg rek ñu and ak mom nañ ko warande waye àndee bi di wax ne mi ngi mi ngi mi ngi sante rek tay soñe ndax loon daw li nek renit kenn ku ne sa beut tek na ko teg na tege na ci kon ñu gor gor lu wat ta xamne batu jébbal bi ñun ñoko waxal suñ bop kat kenn waxalu nuko kon nak nit ku lu mu wax gor da ca wara tek bakanam lepp lu ca war mu diko def ndax mom mi de ngàcca ngalam bu jappé ne at yi néew ne di ji néewut kon ñong koy ñaanal sa borom def waxtu wu ne sa su ñëwee ci at mi sa su ñëweete rek mu yok sëriñ bi di leen wax ni tamit nanu gor te ta ne li fi nek ay wax rek bayiwu ko fi def ju sel la ju set la ta baatub jebal bi ni ma la ko rek ñoko dañu xam ni ponk bi nga xamni mom lañ tollu tay muy wéru ramadan benn ponk la ci ponk l'islam yi kon na kenn ku na ci saw loos ci la nga ca man la nga ca mënut waxtu wu nga di def def lo mënut sax lay wax man jëm lo mënut luñ man mun wéssu nañ ko luñ mënut la jëma jëm ndax kenn ku ci nekk ci ñun ñi fi ne ku ci am sa soxna sa biir kër ga bu wasinee suba da nga rayu gat mbaa nga rayu nak bu taw loola nak sunna du du sunna sax ju feddaliku la ca tek top aada rek la ta façon nañ ko ci kenn ku ci nek bu bu ci sa biiru eut nga def ko kon nak budé nak waxtu dañ koy def bu ñëwee ci lu mel wéru koor li ci yalla diggé ak lim ci sant ak nim ko fonké bu ñu ñëwee ñu gattañ lu ci rek na suñu ak sëriñ bi ñu andal rek liñ doon wax du dëgg kon nanu góorgóorluwaat bu baax a baax di ci di ci di ci joxé addiya lettre addiya ji di ko nam waré ndax xam nga ne moo gàcc suñu looj ndax kenn ku ci nekk kuñ taxaw ne doob jullit nga mer waaye lii tax nga nekk ab jullit xaqan mooy ponk lislaam yi ponki na yi nag teggeeku na ci suñu gannaaw waaye daa am lu tege suñu gannaaw lay tax nag mu suñu jullit wér mooy lay tege suñu gannaaw wecc suñu julli wecc suñu woor wecc suñu aji màkka ñu fonk ko def ko ni suñu bakkan mooy tax bu ëllëgee sëñ bi dana am lam bëgg yéen it da ngeen am li ngeen bëgg kon nag ngeen gën a góorgóorluwaat bu baax ku ci defoon ren defoon nga ci daaw waaye nag ku ci façon yéen nañ ci defaat defaat defaat déwén itam nanu ko fekkee jàmm te ànd ko sëriñ bi te lépp yokk nag kon nag ñu fasowaat ko te xam ne liggéey bi nii rek la loo ci def tey bu ëllëgi ab jéego ngay def ngir eggaat ca la ca des te loo ci defoon tey muy ñaar bu subaa bëgg ngaa def ñett te loolu waxe kese defu ko fi kat kon nanu góorgóorluwaat ànd ak sëriñ bi te bañ koo gàttanlu suñu dara suñu bañ a denc bañ koo dencal dara it nag wax moom du dencu dara dencut dara loolu moom yéen ñëpp xam ngeen ko yéen kon nag te li ngeen koy joxit nag seen bëtëng ciy tege jënd ci wata tabaxu ci euh, jënd ci ciment li ngeen ko jox lépp mu ngi ànd ak yéen di ko yóbbu ci sëriñ ba kon nag mi ngi leen koy dencal foo xam ni yàqu du fa yegg kat kon na nanu gën a góorgóorluwaat di ko jàppale ci liggéey bi suñ kem kàttan ñoo ngi ñaan sa borom def ñu waat ci déwén te ñëpp yokk nag barkeb Cheikh Ibra Fall barke suñ fallu jërë tuuti ci Cheikh Basirou mii nga xam ne moo àgg suuf léegi ci nga xam ne yéene way juróom ya nga xam ne moom la yéene woon kilifaam gii tey ñu toog ci atom bi ndax kii toog léegi te doon wax waxtaan léegi doomi Abdourahmane Dame Fall moom soxna Mbène Fall ak Cheikh Mor Talla kii ba mu ganee àdduna sunu borom da koo soob way juróom tudde ko magam ji tey di kilifaam te it mënuñu ne kat kenn kilifa ak moroma ndax Cheikh Basirou moo jëkk a gane àdduna kon moo ëppi at waaye say Abdourahmane Ndaam moom la sëriñ bi defoon muy kilifa ndax jege gam ko gën a jege sëñ Touba moo taxoon moom defu ko woon dara lu may kilifa rek loolu man mooy la ma gisoon bi mu xale bi bi mu feeñee mu tudde ko sëriñ bi bi mu taataa gummi sëriñ bi dem moom bàyyi na fi way juróom it bu di mottali yéeneem ci dunduk Cheikh basiru mu bi nga naa bi mu ko tuddee seex Basirou ba noppi mu jébbalaat ko magam ji nga xam ne tey moo fi toog toogaay sëñ basiru ñu bokk liggéey bi ne ko nag tey jii yow laalu ko yow na ma ko séddee woon sa baay tegaat naa ko ci sa loxo tey jii ñoo bokk lépp noonee sëñ ba euh, sëñ hmm, Abdourahmane yële woon sëñ Basiru ci gën koo jege sëñ Touba moom mi ni la yële fa bàyyi ndaam mi euh, Basiru mi ci gën koo jege sëñ Touba waaye yëpp nag dañ koo faat gis nga ko nii mun a bokk nii na cuuj bu tawte ci gannaawam ngir di dundal rek waxi way jur kon nu ñaan ci sëñ Touba Cheikh Ibra lii fi sëñ bu wax muy Abdourahmane Cheikh Basiru mi nun ñëpp la ko waxal nun ñëpp kan la ko waxal te ñun ñun ñu bokk topp bokk leen topp di ba si Cheikh Basirou mi ak ak maam Cheikh mii yéen woor na leen na seen seen bu liggéey réerut yéen de lee wóor na leen na seen wu ma matale wuñ ko ak mayit woor na leen na seen bu liggéey jarut saako si man kon nag loolu war naa dal sunu xel sëkk li ànd gannaaw bu loolu amee ñoom ñu nu ñaanal leen ci barke say sëñ a ak Cheikh Ibra ci ba gannaaw ci barke yi way jur sunu borom ba guddal seenu fan. sunu borom guddal seen fan ay warax rek dañuy mbaam rek lu yuy liggéey da buñ lu ñu gën a am doole rek gën a mën a sëf da kon nañ leen ñaanal ak wér ak ko dal yéen ñii nga xam ne nooy njaboot gi ñu jaboote nuyu te di suñuy di suñuy doom te nu walbiti ko di suñ suñu kilifteef nekk ci seen i loxo it ngir ngir jël liggéey Sëriñ Tuubaa bu yàlla nangu kat nun war nañ leen a bu baax yàlla yàggaleen ci suñu kanam nu ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa seen bi yàlla bu muy suñ mujj liggéey yàlla liggéey ba ñu nangu yéen njaboot gi it gis ngeen li ngeen seen jëf yal na ngeen lu ngeen jëf ren yàlla na ngeen def lu ëtt bu déwénee lu këpp te mu ànd ak man ak ak wér fekke jërë ngeen jëf na ngeen baa baal jëre àq jërë ngeen jëf. sëñ bi nee na xolam sedd na baax gis na taxawaay bi jëf ji tam gis na ni ngeen ci amee Pastef mu ngi leen di sant bu baax di leen soññi di soñee bu baax nag ci liggéey bi ah, ñu gën ci am Pastef comme ni ko sëñ Bass mi waxee nga xam ne amuñu lu moom kon sëñ bi daa wax ne mu ngi ci sant bu baax te di ci soññee am nag liggéey boo xamante ne tàmbali woon nañ ko leen ji ah, sëñ Mbaye Diaw mii nekk jëwlin soññee woon ko ah nag lu ñuy waxtaanee la ñun taalibe yi ah, ngir ñu gën a jëmmal liggéey bi ndax ñun amuñu lu kër gi hmm, suñ jëwlin ji sëñ Mbaye Diaw biñ duggee ba ci biir koor gi mu wooma ne ma dama bëgg yow ak mut fay ak keneen ak keneen ba ngeen ñeent ngeen wut aw nag daal ma koy sas sas ko yeneen ñeent liggéey boobu nag sëñ bi daa jox ndigal ni ñu daa bëgg ñu yaatal ko mboolem fu ay taalibe nekk te dend te déggoo di waxtaan loole na doon yitte ju ñuy waxtaanee ba buñ fi jógee ñu mën ko waxtaanee di ko waajal ba saa buñ ci àggatee ah, ñett wala ñeent ñu ne mën a wut nag bu baax boo xamante ne dinañ ko yët sëriñ bi ndax sëñ bi kat amul lu liggéey bi amul lu liggéey bi mboolem lu fi teew nii ko sëñ Bass mi waxee sax am na la ko ci des ndax man fi laa dëkk ko ci kër gi laa dëkk dafi laay reer def lépp daanaka kon xam naa li fi xew kon lu sëñ bi wax am na lu mu ci bàyyi ci lu fi ñëw sëriñ bi joxe ko kon loolu nag liggéey la boo xamante ni jëwlin bay Diaw tàmbali na ko leen ji sëñ bi wax ni yéen ñëpp na ngeen ko dégg ñu waajal ko ba bu ñu fi jógee bu déwénee ñett ñu ne ci bërëb di déggante baa ñu déggoo nañ fexe ba wut aw nag loolu nag dañ ci waxtaan ba ah bu soobee yàlla ah, ñu gën koo waajal bu baax a baax ba liggéey bi gën a jëm ndax sëñ bi sëñ bi amul lu dul lii ah, te comme que sëñ bi amul lu dul lii nag ñun li sëñ bi bëgg rek ci lool rek lañu ñu war nekk ah, kon kàddu yi la ñu waxoon ne ñu jottali leen ko ñu ngi jégalu baax baax ci ñàkk man wax gi nag di tubb baax. <coughs> wa barakaatu xam naa ci gàtt rek xam naa ne dañ ciy fàtt dañuy fàttalee tuuti rek <coughs> gannaaw bu ñu santee euh, mbooloom fi teew yëpp ñoo ngi leen siyaar bu baax di leen sant te di leen baal xaq tey baal xaq tey ñaan yàlla yan nañu yàlla boole dimbali te sëñ nangu nangul ñu liggéey bi dañ caan ko feq yëgul sëñ Bass wax jum doy doy wax wax jum wax doy na sëkk bay say mi wax jum wax doy na sëkk ngunda bi noonu waaye da ci am <coughs> lu mat a leeral mooy wàllu addi yi ak ndogu yi <coughs> addi yi euh, euh, ñu ci am nañu ci joxe am nañu joxe seen addiya am na ñoo xam am nañ pasteef lool doo leen soññ mukk te dañ joxe seen addiya koor gi it am na ci ñoo xam ne am nañ pasteef lool doo leen soññ te dañ joxe seen koor am na ci ren ji am na ci ñoo xam ne joxe nañ seen boo dañoo boole seen addiya ndogu ak seen addiya koor joxe ko am na ñoo xam ne nag joxe nañ seen am na ñoo xam ne moom dara moom te loolu it nax sa bopp nit fu mu bokk mbaalum bokk mbaalum nekk lu ne moo ca boole boppam ndax kenn néew ko kaay def nangam moo xoola boppam ba mu ko mu ne jëbbal naa sama adduna àlaxira te sëñ moom amul lool adduna ji rek la ñu sëñ bi jëfloo àlaxira moom yëg yëgguñu fa da nga ba nga waxee lool sëñ bi nag ni la daanaka ñaari sas rek lañ la sas la ci des loo def sa coobare bopp la muy weeru koor ak addi yi addi yi daanaka dana am juróom benn weer mbaa juróomi weer yoo xam ne sëñ ba lam lay sas dana am semaine boo xam ne la nga yàq ca bés mu ëpp loolu sëñ bay sas te am nañ ko waaye dañ ko rifut ndog yi daanaka fukki fan ak juróom-ñett mbaa fukki juróom-ñaar am na ñoo xam ne itam mën nañ ko waaye dañ ko fut loolu itam nax ku ku ci nekkee da ngay nax sa bopp waaye liggéey bi moom mi ngi ne ku a teg ci bëtam mbooleem ku ci def sa dërëm daa mel ne ñàkk ko ci ñàkk def daa mel ne dañu gën a yokk sax ku ci def sa dërëm gis nga ko ku ci def sa dërëm gis nga liggéey bi ko ko ci defut it gis nga ko kon nag mbooleem ko ci def sa liggéey moom suñ bi xam na ko xam naa ko sëñ eh, ki ki tax ñu def ki tax ñu di ko def it xam na ko kon nag yàlla yàlla na ko sëñ bi nangul te fulal ñu ko jëf nag du tuuti jëf jëf ju tuuti yéen rek sëñ bi xeebut ginaar nawut gileem waaw sëñ bi xeebut ganaar nawut gileem ndax nu ne mënees na koo joxe bi dégum diwlin ganaar saako soble noonu rek lañ koy joxe ba ba keroog fa nga mën a yem ndax lépp ci liggéey sëñ bi la jëm kon nag nañ ko xamee noonu addi ji luñ mat lu mat a fonk la weeru koor gi lu mat a fonk la fi nekk kenn wuru ci soñu kenn ndax euh, weeru koor gi ñi nga ba weeru feeñe lañ fas yéene fas yéene woor wéeru yep. donte bis seen ñu neuf la waaye bañ fasee moom benn bis ba ci lañ fas lañu fas fas yéene koo jëfe kon nag kenn ku ne xam bu weer weer moom mooy mooy soñu boppam bu weeru feeñee ku ne war nga xam ne la war ca weer kon nag ñoo ngi soññ ñoo sant di gërëm di xam na kenn ku ne addiyam seen addiy ñëw na euh, ñi ngi ko bokkal itam wëllëre ak xar yeeg euh, dëkkan dëkkaale yi ñëpp seen addiy ñëw na waa station bi ñoom euh, Moustapha Sarr ñoom ñii seen addiy indi nañ ko ta kenn ku ne xam na ne seenub liggéey ñoom joxe nañ ko ba noppi waa Mbuso ba gee itam seenub liggéey ñëw na ngir barkeeloo ko ak ñeneen ak ñeneen kon nag gannaaw dafa xat ñi sëñ sëñ Tuubaa daal ak ki tax ñu di ko doon Cheikh Ibrahima gis na lépp te doy na sëkk lool doy na seede kon nag yàlla na yàlla taxaw te dim boole ñu dim baax jërë ngeen jëf mas ay xibaar ak jébbuloom bay wax ne yàlla la moom raasi ko jox ko mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom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 mu daldi dem Tayba Dakar ngir déggi Bamba di fa xaar na sëriñ Tayba Dakar cim jàng lay xamey pexe mu tëdd ku di ba mu xëyee ba jërëjëf sëriñ maam góor mu mel ne sëriñ baa ngi noonu yi doon a ak taalibe yi ak xarit yi ak sopp yi nam ko baaxoo defee rek ci bis bi nga xamne ci si bisum ñaar fukki fan yi mi jébbale way juroom bu baax di Serigne Abdou Rokhaya Fall ma nga jógee fii ba mar nan wajale fa lañ defé yépp ci suba gi fi may waxe yow Serigne bi orchestre bi ak agsi na ko xarit yépp dal fi may xey dal Serigne bangi bëgg wacc Serigne mam gor addiye ji nga xamne mi ngi koy andi Serigne Abdou Rokhaya mi ngi koy bëgg jot li Serigne Abdou Rokhaya di ñaan suñu borom yagal ko fi tebe ko wër waye mi ngi ko ànd ak Baye Ndam Fall Serigne Ndam mu Serigne Abdou Rahman ndaysan sa si rek nak deggal ko lol waaw ah, suñ bas suñ bas mangi mangi, maa ngi waaw ni ma ci kiyee mi ak Bas moom Serigne Abdourahmane Ndam ànd ko mboolem taalibe xare gis nga ko fii may wax yow Bas mi ngi si si kar si Serigne Maam Góor may wax yow jërëjëf sëñ Massaer ñu ngi siyaare mboolem mbokki ñu topp mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. mel ni ko waxee tey la ñaar fan ci weeru koor bis bi nga xam ne maam Fall eh, moom Fall eh, ci lay ab liggéeyam eh, ci Fall ngir eh, ñuy xaar tuuti rek bi wàcc mën a dugg ci biir liggéey mën a dugg ci biir kër gi mm. ngir jébbal sëriñ bi liggéey mu ne yaa ngi dégg mbokk taalibe yi noonu eh, di yëkkati eh, kaddu laa ilaha illallah muy baat boo xamante ni nii mboolem jàngat wax nañ ni suñu borom mboolem jàngat alxuraan wax nañ ni suñ borom bindu maanaam bindu lu gën a lu gën a màgg laa ilaha illallah kon moom la ngay dégg noonu ñu koy ñu koy ñu mu mel ni sëriñ bi lañu xaar mm-hmm. mu génn rek bu ñu daal di ànd ak mu mel ni sëriñ bi génn oto bi mm-hmm. waaw sëriñ bi génn na sëriñ mom Lamp Fall mom seigne bissir Fall khadim Mbodj mom seigne Mortala mi ngi noonu yegg gem du ngi so Xadim Fall yi noonu ndax ak ci tepp bi bëgg ko lol digal ko lol waye lepp lu seigne bi sum rek am góor waaw ànd ko ko njaboot gi sëriñ ma góor jërëjëf li war ndax euh, ni gisatul dafa ci magam si Lamp lépp lu maam yëkkati lu nekk maam lamb yëkkati rek euh, euh, moom fii may waxe mooy lu ko waral fii may waxe yow ñëpp ñu ko ñëpp ñu xarit yëpp ñu ko teertu waaye soppe yëpp ñu ko teertu am di jàmm yëpp ñu ko teertu sëriñ bi daal ànd na ñëpp rek gis nga ko mi ngi noonu di ak si way juróomu góor wi di sëriñ Abdou Rokhaya Fall sëriñ maam góor maam lamp lii mu am jafe na bu way juróoma dellu si atoon jamono du soppi aw tooginam ndax da ngay xool ne du sëriñ ñëpp gàtt waaw waaw jërëjëf mbokk yi kon mu mel ni eh, yéen ñuy topp rek ba tey fii ci eh, Touba Palen ko Serigne Abdou Rokhaya Fall eh, moom Cheikh Mamar Talla Fall tey jii ñaar fan ci weeru koor bis bi nga xamante ni ci la maam Lamp Fall moom seen Bassirou Fall Khady Mbodj tànn ngir jëbal ab liggéeyam ni ko mboolem njabootu Cheikh Mamar Talla Fall ki di defee yëpp ndax ku ne xam na ni liggéey bi mi nga tàmbalee ci waa kër Serigne Baara Ndiaye sëñ Mbacke Ndiaye ak mboolem njabootu sëñ Baara Ndiaye képp ñoo koy tàmbale ci bu nee suba lañu bu nee tey lañu séntu weer yi waaye buñ umee bu bis ba dellu si njabootu Serigne Bassirou Fall Awa Jaxate waaye njabootu euh, Serigne Talla Yacine Fall ci jiital euh, Serigne euh, Badam moom Cheikh moom Serigne Talla Yacine Fall ñoom itam ci lañu jëbal seen liggéey muy bis buñ umee koor bu dellu see buñ ci tegee ñaari fan du fukkeelu fan ba njabootu Cheikh Abdou Aziz Fall ci njiital Seydina Aline Fall Badar moom Cheikh Abdou Aziz Fall waaye ci jëwrinam Serigne Cheikh ak mboolem njabootu Cheikh Abdou seeni mag yu jigéen yi nga xamante ni ñoom lañ bokk Cheikh Abdou Assis ñu man ci tudd ku mel ni soxna Maam Fall nga xam ne mooy seen mag waaye soxna Mbooja ñoom itam ci lañu jébbal seen ab liggéey mu mel ni kon njabootu mboolem kër buñu kër Cheikh Mortalla yëpp kenn ku ci nekk tànn nga bis boo xam ne ci nga jébbal sa liggéey seen Abdou Rokhaya Fall mi nga xamante ni nii mooy xalifab Cheikh Mortalla Fall tey jii nag di ñaar fukki fan di bis bi nga xamante ni ci la Cheikh Ibrahima Fall joxe woon boppam sunu sang ba Xaadim Rasul ci Mbakke Kajoor bis boobu nag moom la maam Lamp Fall tànn tey jii euh, di indi ay addiyaam di ko jox euh, euh, waa juróom bu góor wi di sëriñ Abdou Rokhaya Fall moom Cheikh Mamar Talla Fall mu fi toog toogaay seex Cheikh Mamar Talla ñuy ñaan suñu borom mu yàgg lool te ànd ak kon daal mbokk yi mu mel ni kon sëriñ bi egsi na léegi fii ci kër Cheikh Abdou Rokhaya Fall mel ni egsi na léegi ba nuyoog sëriñ bi ngeen dégg mbokk taalibe ñuy yëkkati tur yàlla wi di tudd yàlla ndax ku ne xam ne liggéey Cheikh moom moom tudd yàlla ñoo ànd kon noonu la liggéey bi Euh, baayam waaye mi ah, mi ngi fekkoon nag ak euh, way juróom euh, woo xamante ni moom moom dëkk moom fële ci Daaru Marnaan ñu koy Sey kenn ku nekk xam na ko ci biir kër Cheikh Mor Talla moom itam moom la si maam Lam Fall feggool ñu toog nii waaye mu ànd ak Serigne Bass Fall moom Ndam Fall mi nga xamante ni nii Baye Ndam da ko jël tudd ko Serigne Bass Khady Mbodj yëkkati ko joxoon ko ko nañu ko Baay Ibrahima leerale waaye ginnaaw bi fi nga xamante ni nii Serigne Bass Khady Mbodj wujj na way juróom wu tedd wa Serigne Mor Talla Ndam Fall dafa jëlaat Serigne Bassirou yëkkati ko teg ko ci loxol maam lamp ba loolee mooy wéy ba tey jii mel ni tey jii maam lamp du def dara te Serigne Bass teewul te loolu uh, kenn ku ci nekk ñun taalibe xam na loolu mu mel ni kon uh, sëñ Bass sëñ Bassirou Fall mi nga xam ne mooy doomi Sëriñ Abdourahmane Fall mooy jëwriñu uh, Serigne Lamp Fall mel ni bi ñëwee tam fekk nañ fi Baye Ndam moom waaye fekk nañ fi Baye Ndam moom soxna moom soxna Mbène Fallu waaye di doomi seex Momar Talla kon daal mbokk yi mu mel liggéey bi mi ngi nii eh, maam Lamp Fall fii ci biir eh, kër Serigne Abdou Rokhaya Fall ngir fas yéene jébal ab fi daje ñu ngi sëriñ baa ngi leen di nuyu ak njabootu Seex Mor Talla yëpp góor ñi ak jigéen ñi ak màggati taalibe yi sëriñ baa ngi leen di nuyu te di leen di jottali nuyoo maam Seex mii. moom Cheikh Bachirou Fall moom Cheikh Mor Talla ah di leen jottali yàlla it nuyoo Serigne Abdourahmane Ndaam nga xam ne rakk la kilifa la ndax nun ñëpp sëñ sëñ bu mag bi rek la soxla te mënu ko gën a jege kon ku ci ne sa jawriñu morom la sëriñ bi it mi ngi leen di jottali nuyoo soxna si Faal toog maam Faal maam Njaay Faal moom Mbàkke moom Cheikh Mortala moom mu ngoog mu mi ngi leen koy jottali am nuyoom tey ñaan ci barkeb sëriñ bi liggéey bi yàlla ne liggéey bu yàlla nango nu selal nag tuuti waxtaan si ndax liggéey bii nga xam ne maam Cheikh moom la yàlla teg yan bi ci boppam yàlla na ko téeñal te wayefal ko mu wutu Cheikh Basirou kii mu àndal ab liggéey di Cheikh Basirou Fall moom Abdourahmane Daan Fall ah ca gannaaw ba mu amee ganee adduna di ndaw sëñ Abdourahmane da ko yéene yéene woon a tudde sëñ Basirou Fall tudde ko ko sunu borom ba bàyyi leen fi ñuy dox ba mu dib diir Cheikh Basiru moom sunu borom ba dogal ab liggéeyam yam mu wuy ji Cheikh Abdourahman daal dina cas Cheikh Basiru mi daldi dina ko tekk ci loxol maam Cheikh mi na man kat sama liggéey day dox rek sa way jur laa ko tudde woon yàlla dogal na moom noppi jiitu na yaa fi des moo fi moo yaa fi ci kër gi mooy mooy Abdourahman daam ci kër gi ci kër gi it daal ko ne tekk ci loxoom wax leen ni itam la sëñ do Sène waxoon Cheikh euh, Cheikh euh, Cheikh Basirou Fall bi mu ko yebalee Daaru Marnaan ba toppatoo barab yooyu ba jot ci daa wax ne mboolem ku nekk ci sama pàkk yooyu ci Daaru yom na Marna Marnaan nga xam ne sëñ Abdou Mbàkke ma ko joxoon ku fi nekk ku ne seen ndigal ci loxol sëñ Basirou laa laa ko teg. kon mënoon na ba baam ne dëngëj rek mu ne man maa maa la gën di ndaw lu man mag man ndaw ko ko dàq waaye maa ko yëkkati tegaat ko ci loxoom. ñu amu ci benn soxla sëñ euh, sëñ Abdou ñu ngi ñaan sëñ tubaak ak Seex Ibra yàlla na nga naawtal ak jàmm jëmbat garab kat toog ca kër yooyu yombut waaye faalu li maa yuru sunu borom moom mën na ko yàlla na ko bokk defal gone yii de ndawe nañu waaye yàlla bu yaakaar tas ci ñoom yàlla na yàlla mottali seen ub liggéey ci barkeb sëriñ Tuubaa ci dara ji seen way juri yi Abdourahmane Daam sant nan la bu baax noo ngi ñaan ci barkeb kër gi ci barkeb Paale nag Mbàkke sunu borom ba boole leen def ngeen ngeen di mag seen njaboot gu soof gi yàlla na ngeen fekk ci seen seen liggéey sëñ maam maam Cheikh nag njaboot gii moom moo àndoon ak moom ba baax ne dëgg ñu njaboot gi dañoo ne dëgg moom la ñu topp rek ñu ànd moom ba liggéey bi ñoo ko àndal ba ko jofal ko ci moom maam Cheikh njaboot gaa ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi ñaan ci sëñ Tuubaa Cheikh Ibra yàlla na yàlla nangu seen liggéey yàlla bu muy suñ mujj gu liggéey yàlla nañ ci am ngërëmal sëriñ bi ci barkeb sëriñ Tuubaa barkeb Cheikh moo taala soxna maam jërë ngeen jëf liggéey baa ngi noonu jërë ngeen jëf nanu maase nangu ñaan nanu maase nangu ñaan ñaan amiin la ilaha illallah